wa rahmatullahi taala wa barakatuh fattaahu wahaabu yaa rasaaqu yaa maliki jëfta wahabiya warsuqni bi kunil aana dayqi asil aajilan bil bishri mahmadin xata uqima li diinillahi arkana yasir juuci li tuuba waxmini waqini adal wara والتدب لي سمسكانا لك السماء والأراضي والهواء بلا مشارك لرب من شركه بانا أجب وسلي بتسليم على سندي محمد وتهب لي فائحة بانا سبحان الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñi ñoo ñuy déglu fu ñu mën di di nekk te te te di ci jiital sëñ si dul Muxtaar di ko ñaanal yàlla dëgëral ko lool. ba li nga xam ne bëgg na ko liggéeyal wu juree ak maam yi suñu bopp ci mottali ko. ñaan du ko moom xam naa di ko jaal di jaal rakkam yaag murid yëpp murid yëpp mbokk yi ci rakkam ju ju ju baax jooju dañu ko dañu ko doon tuddee sëñ Sidi Mbacké di ko ko ko jaal di ko ñaanal yàlla mu. moo de moo gisale ko ak ak wajur yi ak maam ya ci xam naa di ca te tekkoon ci nuyoo bi rek rekkam yëpp xam naa kon sëñ Cheikh Madina nga xamante ne mooy xalifa sëñ Mbacké Madina di ko ñaar su su suñu boom dëgëral ko moo moo moo rekkam yi sëñ Ibra Ñaama rek ak sëñ Cheikh Daaru ak ak ñi topp ci ñu ñoom yëpp rek bali bëgg a liggéey suñu wajur yi ak seen suñu maam suñ suñu boom mottali ko ñu parce que ci ci ci wantuwaa xamaa ko ci ci kon teg teg ci sëñ sëñ Modou Abib Diop moom këram mëndumbe moo xam ne mooy xalifa si sëñ sam ba astu di ko ñaanal yàlla dëggal ko lool bali bëgg a liggéey wujur yi lépp suñ suñu boom mot ci ci mottali ko xamaa ko ci kon teg teg ci sëñ Coon nu Fallou mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Manar Diop di di di ko ñaanal suñu boom dëggal ko moo moo nga xam yi ba leen bëgg a liggéey wujur ak maam yi lépp su boom mooy tële ko ñu ñaan du ko ma ak moom xay ci ci xamaa kon teg ci sa sëñ moo moo taala ñi nga xam ne mooy xaj boobu sëñ jekk jóob di ko ñaar suñu dëgër ko ba mu ànd ko ak xam yi ba li bëgg a liggéey wujur yi lépp su boom moo tële ko koy ci ci kon ci xam naa ne bañ a ñi fàtte yi waa Taïf daara yi ta ta if ak ak waa Kayal waaw ñi ci xam naa di leen fàttaliku di leen déggee ci kon bismillah jërëjëf Serigne Moustapha Diop Koki ci nuyoo bu am solo boobu ak ñaan yi ñu di la delloo ñaan yooyu rek yooyu di la ñaanal sunu borom ngir la kattanal la ngir rek nga wéy ci liggéey bu am solo bi nga xam ne nii yaa ngi koy liggéeyal lislaam te bokk yi ñuy bàyyi xel ñoom ñëpp am yéene jooju kon ñëpp ñu ànd maase ñaanal sëñ Moustapha sëñ Moustapha xam naa nag tey du ma la laaj loo indi dama yaakaar ne dañoo tàmbali woon lu am solo ak sëriñ Touba Chamat Bamba Xaadimu Rasul ci téere bi xaside gi di nax ju di wax ci ay teggin te jamono mu mel ne saa bu nu yeewoo rek day mel ne jamono ji taxoon ñu bind téere bi ñu ci waxtaane rek ak sëñ bi di ñu ci def ay tegtal yoo xam ne nii moom la ñu war a nekkee ngir mën a am nekkin woo xam ne nii kat li ñuy sàkku fii danañu ko am waaye mën nañoo rafet njort ci it ci ëllëg bés bu ñu jàkkaarloo ak suñu borom sëñ Moustapha ca dama lay bàyyi rek nga wax ju fa nga tolloon ci nax ju ak it looy indilaat bokk auditeurs yi tey maanaam ñi ngi taxawoon ci maanaam ci fen wax lu amut wax lu sawaano ak dëgg ah waxoon ci ne suñu tubaab leetar bu bu mbindoon maanaam Cerno Birahim jox ko mu muy ab laabire ci ndongo yi ñëpp te moo xam ko ko ne ko bàyyi wax lu jooyoo dëgg day moo gën jàng Alxuraan
bàyyi wax lu juyoo ak dëgg moo gën jàng Alxuraan mu ci ci muy lu am solo.
lu am solo ndax dafa mel ne nit ñi. dañuy leen di seen ñu yore téere wala course. waxtu nekk waaye yenn saa yi sax ñu tëj ko. wax loo xam ne. daanaka safaan la ak dëgg. lu mel ne woyafal nañ daal wax lu dul dëgg lool daal.
bokkoon.
xam ne te it loolu day mandargaal it. wax dëgg ni mu amee doole doole.
parce que bu ñu koy tëkkale ak kàddu yàlla ngoog xanaa ne loolu lu jar a bàyyi xel la yërëjëf ci maanaam nga xam ne ne Sëñ Tuubaa wax nañ ci ci nañu bi de wax ne nag waa ji dana mujj sax di di wax lu amul ba mujj ñu bind fa yàlla ne ab fenkat la xanaa lépp lu mën a kenn kenn du gëm waaw nga xam ne mais mais yenn saa yi sax dafa mel ne eh, dañuy misaal lu lu lu mel noonu waaw Eh, danañuy toog ci jataay sax gis kuy ñëw ñu ne ah
waaw noppi leen kat waaw bisimilah
kon ndekete Waaw.
nit ki mën nay fen ba ñu bind ca ca ci Waaw.
suñu borom ne ne fenkat ba nga ne waaw xam ne loolu moom ko kon moom ci lan lañ ci àll mos am na ci ci ci ahlul bayti Mhm.
ku wax ne nit waaw.
ki saa su fenee leeru xar xar kanamam dañ koy waaw.
dindi saa bu fenee waaw leer leeru leeru xar kanamam dañ koy dindi dañ koy dindi waaw nga xamante ne lu- lu- ci ci ci loolu Ah.
ñu baax ñi nga xam ne ñoom mën nañ ñoo gis bàyyi suñu nit waaw.
bu gisee dañu xam ne waa ji kat ab fenkat la ci seblaat mu baax moom yàlla na ko ko yàlla doon di ngërëm dara wax nañ ne dara wax naa man de bu nit ñëwee fi man di wax lu amul kàddu gi gi gi ñëw ci sama ma nopp bi naa ma li muy wax du dëgg damay rus sa sa sax ne mbaa diggu
ah waaw waaw moom moom ñoom moom da- da- da- moom wax jaag Mhm.
ci la sa sëñ baaram sëñ bu mag bi ci daa wax ne ne ñu wax ne daa daa- su ma saa toog Mm.
maanaam ak mbooloo mi kii xalaat cim xelam.
Mhm.
danaan danaan ko noppal yow dang may tàngal ku xalaat.
xalaat te te waxagul waaw daaw ma ne noppal da da da da dang ma may tàngal waaw nga xam ne ne. ne kon kon daal moom du du du rëy la.
Mhm.
mën naa bàyyi xel lool tey suñu borom nee na kabura maqtan indi lay an taqulu maa laa tafalu.
Mhm.
maanaam rëy na fa yàlla ngeen di wax loo xam ne naru leen ko. waaw.
dafa yàlla waaw loo di wax loo xam ne naru leen ko se- seen soxna wax nañ ko keroog sax ne seen soxna ba ko seen soxna ne ko mbakke de loo wax def ko. bu ñu ko déet sunu borom dong mu mu yeyoo loolu ci waaye du ma wax lee nar lee.
waaye du ma wax la nar lee
loo loo loo loo loo mën a ko. waaw ndax ndax xam nga wax def yàlla ko yàlla ko ko def yàlla moom lu mu wax.
ah ba inna laa laa yuxlif maa yàlla nee na sabab de du ma ko faussé. ko wax moom moom mën na ko. ku dul moom nag da ngay yéene yow.
ah waaw kay waaw.
wax loo narul daal wax yi.
loolu moo garaaw mu ngoog maanaam nga moo tax sax ñu suñu boom digal ci ci ci ci bi bi sa salaam ak way gëm yi ci ginnaawam ne loo leen di loo leen di waxati day wax ne incha allah waaw danaa def def danaa dikk suba incha allah incha allah ndax ndax yàlla so coobare yàlla nga ca lay sottee
te moom rek moo jeyoo yu moom moom rek la ak coobare moom rek moom rek la Mhm.
ah ci ci ci xam naa kon bala bala ñoo dugg ci foofu.
Waaw.
maanaam ni ñu doon ni ñu ñu doon diglu. ñu bàyyi xel ne oh, bande ki kero ba.
waaw ci ci ci machine bi dafa dafa mel ne dafa amoon ay kii nga xam ne maanaam wax ji da doon dagg.
dagg du mat sëkk sëkk.
Mhm.
waaw ñu ñu ñu bàyyi ci xel loola. kon ku ci ci ci kon ñu ñu ñu ñu tàmbalee ci lay kon ci ci ci ci buntu bi taxawoon rek. mooy ku ci kon kat maanaam léegi euh, toppatoo ay waajur teral leen.
toppatoo ay wayjur teral leen teral leen lu am solo lool.
Mhm.
xam nga sun sun boom moo wax ne ci ay bare bare waxa daara bu ko àlla taam du lay yeex ci ci wàllu waay dañuy ihsaana sun boom dafa wax ne àtte naa ne du du ngeen jaamu bul jaamu kenn ku dul moom yàlla waaye nag way jur yi moom na ngeen leen rafetal jëme ci ñoom Mhm.
loolu moom kon sun boom ni mu fonk jëmam ja lu lu mu ca laaf rek lu mu ca teg rek Mhm.
da ko fonk kon moom kon ci way jur jur moom bu doon ab yëppare sax fonk da koy fonk
Mhm.
ci jullit la way juram di yëfar Mhm.
da ko war di raamal di ko sukkal di ko toppatoo bu demee ba wujuroo jóge fi Mhm.
te te te dugul ca diine ja Mhm.
muy dem jëbbal ko way diine yooyu ñi ñi ñi bokkati ni
ah mu mu dem jëbbal ko ñi nga xam ne ñoom la bokkul diine waaw suñu ko ñaan la wàccoog moom wàcc ndax wayjur la wàccul la kon dane toppatoo la laaj dane me- mees ba sax may nañ ko sax mu mu- mu teewee ko bu dee dañuy ko maanaam ab chrétien la ñu di ko meesal maanaam léegi sañ na sañ naa teew ca kii ba am na sañ-sañ bi waaye nag waaye bu teewee nag du ñaan day taxaw rek seetaan wax Mhm.
du ko sang du ko jullee du ko dara da ko jox loolu day tekki ci valeur bi nga xam ne waaw sunu borom jox na ko wayjur waaw.
lu am solo loolu lool lool lool waaye nag suñu la bëggee yóbbu nag ci ne la nag wa in jaahadaaka ala an an an en tout cas bii maa lay salak bi bi bi yàlla man falaa tutew ma su bu ñu la bëggee jóor ak ne la kaay génn ci li nga nekk te fekk ñu ci li nekk bu boobaa nag boobaa waaw waaye nag topp nga am na fu mu yem maanaam ba ngay lànk it wasa buma fi fi duniya maarufa loolu maanaam dama lànk nga da nga koy rafetal
nga xam ne lànk nga day tegu ci teggi tekki ndax waa tax lu ma uffin ëf képp ëf sa ñoo ko wax sa wajur
kon ndaw ñi bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax a baax fii nga xam ne fa la sëriñ Moustapha Diop toll ndax bëri na waana loo xam ne dina gàllankoor doomu aadama bi te moo koy teg boppam ci def loo xam ne neexul suñu borom ndax gannaaw ba mu waxee ne jaamu leen ma waaye nag booy jur moom toppatoo leen ko loolu yaakaar naa ne ndigal lu am solo loo xam ne kenn ku ci nekk war nga cee bàyyi xel bu baax a baax maa ngi di déglu démb ci ab ci ci ci ci ci télé am koy wax benaan kat quinze xaw ma huit huit mars boobu ñu ñu ñu jagleel jigéen am am ko wax ne daal ne to toit bi ñoom da dañ ñoo xereñ ba tax ba tax ñu jagleel waaye waaye moom sax dinañ ko war defal bis bis bu set wala na na ko waxee toit bi dañoo xereñ moom daanaka wax ju suufe la suufe la waaw ci ci waaye l'islam moo ko jëkk a teral Afrique gii ñoo jëkk a teral jigéen maanaa léegi maanaa léegi ab lingeer Afrique jigéen dara yilif dëgg la maanaam aw sant dakkantel buñ ne la joor ngoonee laajte la ñuy wax bàyyam kenn du xam buñ ne mataar numbe sekk la ñuy wax kenn xamul bàyyam tubaab bi da ba 45 rek defe naa ne jigéen tekkiwu fa dara daal ba 57 57 voilà mu ngoog mu ngoog 57 ba léegi si ba léegi si sax Angleterre Angleterre li ñu fay góor moo ëpp li ñu fay jigéen kon nag kon nag moom yaakaar naa lislaam mi nga xam ne moom alxuraan yi suñu boom li mu fonk jëm moom yi téegul mu jël way juru teg ko foofee te ba ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne kat àjjana mi ngi ci doon ndëggu yi maanaam léegi way juru yu jigéen yi la wax te dafa préciser u jigéen parce que way jur ñaar la moo ne yu jigéen yi loolu la leer na boo leen liggéeyalee ba am seen ngërëm moom moom bu jub jigéen li da nga am àjjana loolu kon moom yaakaar naa ko ci kon l'islam kon moom moo moo moo gën a fonk jigéen tey sóoratu Nisaa yi di dégg nañ ko sóoratu jigéen waaye kenn fu déggul sóoratu góor góor mu ngi kenn déggul caw saaram kon nga xam ne jigéen moom bu yàgg lañ ko defe naa ne cër bi cër bu ñuy joxee cër bu sunu borom di joxee jigéen a rëy moo kon kon kon sëñ sëñ bi ne kon na nga na nga toppatoo sa sa ñaari way jur te te na nga leen yërëm na nga na ngay gaawee jëm ci seen digal fii nag na na nañu bàyyi xel ne wayjuru jigéen moo gën a yaay yaay toppatoo ci baay.
baay
situation dafa waxoon ne ko. kam doon dénk ne ko. sa ndey. sa ndey te ne ko sa ndey mu ne ko ak sa baay mu ne ko sa ndey mu ne ko ak sa baay mu ne ko sa ndey ak sa baay.
xam nga loolu valeur bi nga xam ne nii loolu day tekki rek valeur bi ndeyam.
waaw ci doom ndey moom moo moo am na ñoo xam ne xaw nañu ko réeré yaakaar ne bàyyi moo gën a foor waaye waaye bàyyi moom doonte ne sant ba ngay jël ci ci islam waaye nag taxut ne moo gën a foor ci islam xam nga bu ñu nee sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ñu wax sëñ Cheikh Mati Lay Mbacke xam nga si wujur yi la ñu màgg màgg maam Cheikh Ibra Fati ah maam Cheikh Dagaal du Roxaya waaw xam nga loolu loolu firnde la goo xam ne nii maanaam lu jara fàttali la kenn tudd kon kay cër la kenn tuddul keneen ndey la ñu tudd tey moom ndey ak
ci moom seerafal mii waaw ndeyam la ndeyam la ñëpp xam moom la ñëpp xam
ñëpp xam firnde la ñëpp xam ñëpp xam est-ce que lu am solo kon la kon ndey lu am solo la képp koo xam ne nii sa ndey ngi ci sa wet loo ko fonkoon bi boo nga yokk ko te bàyyi xel bu baax lii nga xam ne moom la Serigne Moustapha di wax yokkoon mu ne sëñ bi na na nga taxaw ci lépp lu lu la tere.
na nga taxaw ci lépp lu la say waajur tere.
li tere rek taxaw ci.
ko waaye nag waaye nag kon mooy loo xam ne dafa dëppoo ak tere yàlla ba ba tey. mu ne kon day soo ko defee ngir ngir jëm yàlla ji sa kawe dana yokku. fonk leen loolu. mu ne képp koo xam ne daa nekk dalaa mag dalaa gën a mag. ci jegeñaale yi. na nga ko wekk. sa mag fu man doon jigéen la góor la na nga ko wekk
na na nit ñi ràññee bu baax loolu lu mel noonu ku la mag ku ne nga wekk koo jox ko ca lu am solo la amoon na ci yoon wi waaw yoon wi amoon na ci bu jëkkoon bu jëkkoon bu jëkkoon daal di fanko mag lool mag lool donte ne sax dangaa jot na sax sam xel dana la sax kat jëfi waa ji kat moo yiis say jëf sax waaye.
waaye da nga ko war maal ba lakkal ko maanaam laa léegi ji safaanam yooyee waaw ndaxte nit ki moom bu nekk ci la ka war yow neel ca la la war te bokk na ca la nga xam ne moo la war war maal ku la ko
benn waaye dama benn ab mbakke mbakke damaa mas a laaj ne moom Moustapha yow ni ni ngay def mbakke mbakke yi nag ni nga leen di ni nga leen di di war maale ma ne ko ah ma ma ne ko sëñ bi rek rek rek ma ne ko ma ne ko rek man de fu may xool jantub yàlla bi bi laa fay xool saa su ma fa noppee gis ci jantub yàlla bi am naa ful lay nag du muy ci boole koog say teggin nag ah teggin du du la ma ko rek ci ci ci ci way juree bu ñu doon génn ci ci dina yi waaw da ngay lànk ba nag lànk teggin teggin am solo te tey danaa danaa wax ga ci gars yi ne leen su su ma gisoon nit dugg ak jigéen ci am néeg wax ne da- dañuy def maanaam na safaan ba buñ génnee góor ga googi googi génn bu sangu jee ba ñëw moom laa gën a wóolu ci mu jiite ma waxtu wi ah waaw ci ci ci ci ci ci sama bopp maanaam moom moom mu jiite ma moom moo ma gën a doy ci ma ci ma julli ma ma- ci ma ndox ma man doom
xam nga lu lu lu lu ko waral la li ma wóor ci sa ci sama bopp damaa wóor ci moom ci moom man kenn ku nekk xam nga sa bopp sa bopp nga gën a xam déet man damaa am ci man ayib bi nga xam ne am naa ko damaa jigugul fu ma ko sunu boom jégalee te te moom mii mën naa ko sunu boom jégal na ko
waaye loolu nag sëñ Moustapha kenn ku ci nekk nag war nga war a maanaam sa ayib bu ju bu ju bopp daal war na laa doy yow sëkk ba doo lijjanti ayibu keneen lu am solo ma daal ma ma ma- ma daal sama sama doy di moom dama dama wér waaye woo ci ci waa ji sax ne ne ma sax maa ngi dugg ci biir ak jigéen ji wóoruma sax kat ne la ñu wax de- de- def nañ ko ci ci wóoruma di loolu de maandu dëgg la moom ah wóoruma di man waaw wóoruma loolu nga si nga xam nga nga xam ñu toll ci jamono yu tuumaalante na wallaay.
jamono yu weddi kilifa jamono yu weddi mag ah damaa mas a génn di jëm ci jumaa ji di di mag ja jub ak kër kilifa jumaa ji nodd gungu mujj gi mi ngi ngi- ngi taxaw ma seen otoom génn ci kër gi jëm soowu sa sam mam xel ne ma sëñ bi da xam naa mën naa am daa am soxla su jëm ma dox ay jigo xaar ne ne waaw lii de moo gën ci man ma xaar ne
Mm, waaw waaw maanaam eh, coïncidence bi entre noddu gi waaw ak génn bi mu génn jëm booru soow jëm soow xaar ne jumaa ji mi mi mi ngi ko jegee lool waaw day mu si génn man man naam dafa am yitte daa am yitte joo xam ne lislaam may na ko nag mu mu- ndax bu amoon ku ku nekk ci diggante dund dund dund ak dee dem ci kooka moom mo- mo- mooy farata
léegi nag boo séenee tey eh, Matar taxaw ak eh, Soxna nga ne ah ñii di seen affaire leerul ñii di saway seen taxawaay bii ci man de toujours ma seen leen ñuy wax rek ñii di Ci- seen mbir leerul ci ñii di ci seen nangam nangam kon Ci- ndegeti nit ki waaw ba ba ba ba ba ca cëppaa ndaw la rek ndax Waaw.
kenn xamul Dara wul.
jàppal na ci Mu ci dëgg.
jub la nekk mu ci dëgg rek Dëgg la.
ak am solo wallahi wallahi loolu loolu war maal doomu aadama waaw ma ma ci mën na ko Mhm, mu ne kon nag ak ku dul jegeñaale ñooñu ku la ca mag mhm.
na na nga koor maal waaw ku dul jege ñaale say way jur waaw ku la ca mag rek na nga ko war a daa am ku- ku- ku- waaye góor goo xam ne sama benn nijaay ju ju ma doon jàngal xam-xam xam-xam yu bàyyi yi jàngal ba ba mujj mu tiit mu ne ma waaw Moustapha xam nga lu muy jë- jëriña soo gisee bu la borom bu mu woyof rombee nga ragal ko xam nga ma ma may wax ne man de nit nit nit ku ne danaa ko ragal fekk fekk fekk ma koy xam te te nit mu mu- mënu ma ko xam lu tax ma koy ragal ah li ma xam ci sama bopp laay ragal ne ma nga ca moom ndax bu nee ci moom kon m- mën naa moytu yow daal toujours da nga koy déparé ci sa bopp rek mooy seetu bi monsieur bi na- na- ndax yow ab créativité nga dëgg Hmm, bu yor ay ay daan yu bari ah.
su gisee nit ku kuy dox war naa yaakaar ne moo ko ëpp ay daan
yow ba daal xam nga kii vingt cinquième dal rek boo c'est pour ça mort
man nga ko dara ala njee xanaa ala ala njee sing sing dara gi moo yore dara ngay ko yore dara waaye lu am solo la ci nga xam ne toujours rek waaw mais moytu moytu moytu xam nga moytu moytu sax du ragal waaw du ragal xam la
kay xam nga nit ñi dañuy jaawale Oh.
maanaam ragal ak ak ak ak Moytu.
ak ak moytu tuu bokkuñu ci ndax boo xamee dëgg ah am na loo xam ne boo boo ko ko xamee te xamoo si sama Ah, rob ji yow ah.
lu lu lu ko rawoo ma Ah.
teew ca moom Ah.
da da nga moytu de ragal ak moytu bokkuñu ñeme ak umpule waaw bokkuñu parce que am na yoo xam ne boo ko ñemee da nga umpule rek.
loolu parce que nit ki boo ko xamoon dëgg dëgg dëgg.
nit mas na maay gis. ca ca ca ca ndaw. ci waa joo xam ne dañ ne dafa ñeme bu ñu ko koo pax mii de paxoom mbëtt la. dañuy du dugal loxoom.
yii kaw ci ci gars yi ne dafa ñeme ma ne di ñeme ab dof la. lu ko xamal ne ko du pa du paxum jaan dof la. ndaw la kooku lu mu war a sant moom.
Njaay Njaay la sant kay Njaay la sant kay.
ak ñeme bu bu pax moo xam ne xamoo lu mu doon nga dugal ko sa loxo.
bismillah bismillah ñu fàttali mbokk yéen a ngi ànd ak rajo Dunia kàddu gi di bàyyi ko fii ci studio Serigne Fallilou Mbacké ci taaxu kaw bi nu duppee maam Thierno Birahim seen émission pencum Sénégal ak Serigne Moustapha Diop Koki Serigne Makhtar Mboup nekk ci wàllu xarale gi lii nag di Nahju Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul du nu fàttali it ni nga xam ne noonu la ñu war a nekkee ci sunu biir ñun doomu aadama yi ni ñu war a fonkee sunuy wayjur ak képp koo xam ne ni sunu kilifa la ak kuréel mag Serigne Moustapha.
ma ci ci loola misaal ja suñ mbag ki ki ma dina misaal la ja xamoon naa ko daa wa- wax naa ne moom day nax ju buy dox la
ndax bëri teggin ak xam ni muy nekkee.
lu lu la mag mag mag soo toogee fi moom ca la mag ja xamoon ci ci moom moo lay ëpp ay tëggin ndax bu bu- bu sukkee fi sukk sukk ba ti ti ti ti ti woom yi lu mu yàgg yàgg fekk nit a ngi ngi toog ci ci saal bi maanaam léegi dana ko su ci ci rusa yëkkati ah
léegi ne bari woon na de nga xam ne lu tànk yi métti métti noonu lay toogee rek moom.
maanaam maanaam la- ci ci lañ da- ci daa xamee ne to- toogaay ba ba métti na su buñu gisee mu mu jël loxoom yëpp yu tedd yi te teg ko ci teg ko ko ci bës.
wóom ya ñu xam ne ne ne métti na
ndax i teggin rek.
te gir yëpp maanaam bàyyam yi nga xam ne moo leen féete woon booba ak mag Mhm.
nga xam ne ku- ku ci demee ne ne ne ne ci na seeb du du du laaj maanaam daana ko jox ci ab cër cër boobu bo- bo- boo xamee sax dañ daa wo- wax ne sax day ñoom sax day yaakaaruñ woon ne sax dana leen jox cër booba
cër bu wàcc kawee seen wàcc njort wàcc wàcc rek.
wàcc rek ndeysaan.
wàcc rek bu buñ ne si si si bi xaaj da nga ci kër gi buñ ne si si bi xaaj da nga ci kër gi mbaxana nga ak yi dal la noppeen na ci ci rek moom am solo.
dutu wax kenn nag ku dikkati di di di soxla mu ne ah ci xanaa ba ko ku- ku- ku- ku dem rek
cee ah nga xam ne moom moom moom maanaam teralu teralu nañ lool. teralu teralu loolu loolu mas naa bis boo xam ne boo wax dañ ne eh, dañ ne weer yu feeñ na. muy koor am kenn ci ci ci do- pere yi ju jóg eh, maanaam daw di bëgg koo wax ca maanaam jekk dalu xudus yi. mu ba mu ko déggee mu mu daal di ne nañ ko woo mu ñëw mu ba mu ñëwee mu ne ko. loolu du fii lañ ko koor a waxee.
waaye xam fa nga war a waxee lu am solo la moom.
weer feeñ na ka xalifa ba ba koy wax.
mooy yoon. parce que loolu mun naa indi.
bu wér wér seetal see see seetal bind boobu ni ni mu amee maanaa waaye loolu du fii la nu ko war a waxee.
lu am solo la ci ci ci nga xam ne kon ci ci ci na na ju la ndax yow kii ginnaaw say say kilifa fi fi ne rek yow sañoo too ci yow ci wax yow
ndax ñun nag sëñ bi war nañ war na war nañ war war nañ xam nga xam nga war nañ ko gën a mën a jëfandikoo fi ñu toll nii.
wallaay.
ndax njàngale bi dafa des lu bëri tamit.
wér wér waaw dafa des lu bëri.
wér de- damaa gis sëñ sëñ Maxtar Kébé moom xel koom ci doo ngay si sel bi la ku jàmbaar lool sëñ Maxtar.
leeral nga xam-xam ak ni ko ci yàlla dimbire yàlla na ko yàlla yokkute aar ko dëgëral ko xam naa ne ci gaay yi nga xam ne da- da- dañoo jur xaalis ñoo xam xam nañ fi- fi ñu jëlee xaalis bi moo xam moo xam ci xamul muñu ko te bëgg a liggéeyal yàlla ko maanaam ab toolam ko sëñ Maxtar Kébé.
to- tool dëgg la tool na ndax soxna nda stugaaw ne ñu daana wax dongaa mi yi su su su booloo mi ba ba baree mu mu- mooy leen mooy leen bàq ci ci bàq tooy na lu waaye jiw mu mu sax waaye kii moom bàq bu tooy la Oh.
jàmbaara lool sëñ Maxtar.
leeral gaag maanaam waaw.
ni- ni- xam-xam ba ni ni ni ko ci ci yàlla baaxee macha allah kàddu bu leer gi.
lépp Mhm.
wolof yu leer yi set wecc ma macha allah.
yàlla na ko suñu boom gën gën dëgëral Amiin, amiin.
gën gën gën ko waar ba mu ci Amiin.
am ndog ak ci ci àkku kum ndam amiin.
maanaam da- dana dana fekk fan yi mu- mu jàngale waaye moom ma gis mu- ñoom ñoom mu- muy jàngal Mhm.
xam nga bu dee do- dongab dara boo xam ne mënuloo sa sa bopp lu bari maanaam nit ñi di la teg teg fenn. dëgg la xam nga xam nga Sénégal.
wala réew mi toll.
ba Sénégal ay baadoolo lañ.
ku amul nekkoo.
ay baadoolo lañ maanaam ba li nga xam mooy. da ngay def ne suñu sax day defar ma. yëg ci kaw.
waaw boo yëgee ñu ñu ne ne ne waja ngi boo leen boo leen defee ne ni sa bopp rek. maanaam ñu ñu ñëw ci sa kaw. nga nga nga xam ne. gis naa ne gis naa ne maa maa ngi fekk keroog sax dama ko fàtte keroog. ba ba mbooloo ma ma dem. daa toog portable bi bi mu yor sax xam naa ne portable ba ba sax maanaam sat na njaay lool. te te maanaam ñooñee di fa jàng si.
waaw fa jiwu leen dërëm. muy muy xëy di ja jàngale suba. ba maanaam léegi bëccëg muy tàmbalee cinq heures. ba ba onze heures minuit. joxuñu ñu ko dërëm portable boobu sax ki gën a amul xelam waaw nu nga ko teñoo te teg jëndal ko.
jëndal ko ko.
ba noppi nag ci maanaam yaakaar na nag ne nag yow caara fii yi ma lay waxal noonu rek soo noppee barke ba dana ci dana dugg déedéet ah déedéet dëgg déedéet xam naa nag loolu dina am solo lool it eh, di seetlu baax na waaye seetlu lu baax di ko defit dara gënu ko lool parce que loolu ku faaw ñu am seetlu ñoom it bàyyi xel ci loolu lool yi te te nit ki bu lay jëriñ nag war ngaa xalaat loo ko war a jëriñoo mu xokk maanaam sa sa sa moo moo moo jur wala dara wax naan moom day dundal kenn ci magi murid yi jeex ci yoon wi moo ko moo ko gënal de de mag xam nga tey Sëñ Matar Kebe moomu maanaam naa léegi amoon bii mag jox ko ko waaw maanaam moo ma gë- gën a wóor ci ne ma su ma sonnee de mag ba noppi ndax yàlla dana ko nangu ndangu si waaye jëf ji moom wóor na la ne moom ah dafa dafa dafa yomb xam nga xam nga xam nga ci ci kasa fii moom fii su ko yàlla nangu wutoon sax baax na xam nga lu mu baaxee baax na ci ci ci sama sama tànk bi dama makka ji moom baaxul ci kenn makka ji moom bu ko yàlla nangu sera la doon su ko nanguwul sera la doon de sera la doon sera la doon lu am solo la jëf joo xam ne moom du neen moom waaye nag bay kooku kuy jëf te yàlla tax la waaye
ci alhamdulilah waaw ah na ah ndax yàlla yàlla dé- dégg naa nag ku ku ku wax ne alal di liwut maa suñu boom mooy lank ba kenn du ci mën a jaam mu yàlla Ah.
day lank moom day lànk boo bëggoon sax day lank day lànk day lank
aha ku ko ci ci- ci kon bu ci mu ne ak kudul ñoom maanaam kudul ba jege ngaa yi nga xam ne dana dañ laa mag dañ laa filtré ak mag kon mooy na na ngaa nag nit ñi ne kon mboole seen ci jikko ju rafet ndax kat jënd bi bàyyi sa tuur salam ne woon na ci ci hadis jikko li ñu jikko laaj bis biñ ci mooy jikko ju rafet noo jikko no, te te ne woon na diine diine mooy jëflante jëflante keppal coow bu bu bu ñaawee ñaaw na bu rafetee noonu mu ne su dee ànd nga nit ñi ci jëflante ju ju rafet day ñoom ñëpp danañ la waaw tunnaan suñu borom dana dana la sopp suñu borom bu la soppee ah day wax waa kaw ñu leen soppi leen ko wax ci wax waa suuf malaaka yi yuuxu ci ci dindi yi ni leen sopp leen diw suñu borom so sopp na ko bu so so so waa nag bu sopp la so so so waa nag waaw ku dul saay-saay dara la sopp
nga xam ne ku la sopp rek moom waaw yàlla yàlla bu sa say bu dul say say rek dina la sopp moom force la lo lo lo lo xam ci misaal ci misaal suñ fal lu ma ci maanaa waaw maanaa képp ku am as leer sopp nga ko waaw te muy dëgg jeex nag loolu looloo gën a gaaw moom moo gën a gaaw maanaam loolu yëpp lu ko waral mooy bu fekkee ne da ngaa tàmbalee ci jëfante nit ñi waaw kay jëflante gu rafet dina def suñ fallu ma- maanaa ñëpp yi yam fee moom kem tolaay li waajo lam soxla moom moom nag yoru si amul safaan ba lu waajo soxla te du safaan ba loo cooy maanaa defukaay goo yor mu mu duyal la ko loolu daal la moom oo yaatu yaatu na Bëri kay yaatu na de yaatu na kay yàlla ñu ko son borom fayal Amiin waay.
te dëgëral ki kii ci ko fi nekkal si Amiin.
suñu boobu Amiin.
ak suñu tubaab ko ci ci kon ci ci mu ne nanga rafetal jikko yi ci di ci di féexal nit ñi ubbil leen belli leen Seexu Seexu Moustapha da ci ci mu baax ma daa masa yónni ndaw ci sëñ bu mag bi ne ko dama bëgg a tukki ci ci kër gi tukki tukki ci kër gi mooy dugg xalwa waaw
sëñ bi bi ne ko ma laaj ko s- boromam daal daal daal di dox ay jiwu di kat ne ko ne ko sa- ne ko boromam nee na defal na ko ko ci mu lijjanti mbooloo mi te bellil xar kanam yi
balaa moo tukki ci biir kër gi di dugg xalwa na dem lijjanti nit ñi rek te- te bellil be- bellil xar kanam ku ku la xel siin dal ku la siin xelam dal xam nga xam nga ba ñuy wax ca naxju bisirun li li li baakin ku la gis te te am njëg njàqare bëgg
loolu de moo gën téeméer yoon dugg fële di ah moo gën xam xam nga muridismu muridismu moom si Sëñ Tuubaa njàngale mu ñu indi te mu yees mooy lépp loo xamante ne da nga koy amee ci biir nit ñi moo gën looy amee ci biir ci biti te muy dëgg na ndax Sëñ Tuubaa ci laa bëgg jëf ji jalgatewul dem ci keneen waaw wax nga sa bopp sànq- rek wax nga fi sànq misaal mi nga xam ne nii waaw que jóge ca néeg ba ba pare sangu waaw
mu jiite la wallahi moo ma gën a wër sa bopp moo la gën a sangu moo gën a wër lu am solo kon lépp looy am ci waaw parce que intérêt général Waaw, moo gën a- bokkul ak intérêt personnel wallahi te nit ku baax moom Waaw.
intérêt général la Rek liy la.
jëriñ ñëpp lay xalaat Rek.
waaye li ngay jëriñ moom kenn Waaw.
dong Waaw.
kooku moom Amul solo.
amul solo
ci ci nag sëñ Tuubaa mii njëriñam lu lu- lu bare doo nga tax ñi- ñëpp wallaay ñëpp xam ci wala Wallaay, wallaay.
du du pour moom kenn du pour njabootam kese lu am solo sëñ bi bi nag ne it na ngay sopp soppalu ji nit ñi nga sopp sopp lu nit ñi leen wa waaye te ko nag ci dëgg danaay wax ne waaw waaw danaay wax ne so so soo soo fekkee waa joo xam ne day wax lu dul noona waaye ci waa ji mënulu ma ko dara danaa am fulla yi ne muñ ci xar kanam ba mu ba mu xam ne anduma jël
xam nga nag loolu lu am solo la sëñ Moussa waaye yow mu wóor la ne lii waa jiy wax àndoo ci te gëmoo ko waaye faw nga ree sa ree ju ñàkk xorom jooju pour wan ko ne Yàkk na.
ànd naa ci li ngay wax waaye ci sa biir xol weddi nga ko moom moom ma- loolu ci ñàkk fula la man ak kenn mu tey lu waaye màgg màgg màgg màgg màgg ci nit ñi.
waaw.
moom moom man ma suñu doom màggam nga ci ci ci ci ga mu mu ci mooy far ci sama ma xool sa mag yow. loolu moom waaw loolu moom dafay lank moom dafay lank.
waaye fekk kuy tappale nga koy dimbale ci tappalee dafay lank dafay lank dafay lank.
lu am solo aha ku ci ci kon sëñ bi ne soo defee noona Hmm.
kon de def na la sopp. waaw sopp sopp lu leen ci dëgg.
waaw ci dëgg kon nit ñi danañ la sopp waaye nag bàyyi xel nañ jaay soppin mooy ñeneen ñeneen ca dëgg.
ne ci dëgg baax na la si neb laa doon wax man dëgg ragaluma ci yow it waaye nag ñeneen ca dëgg nag bëriwuñ.
ñu néew lañu moo tax it.
yaa ah xam nga doo doo gis ci gaa yi wér de laa ilaha illallah waaw foo leen fekk dañuy dañuy tàng jër waaw
maanaam léegi nit ñi dañ leen di ragal waaw tàngoor seen seen seen tàngooru biir bi waaw mooy tax ba nit ñi ragal leen
laa ilaha illallah ji tàngooru biir ba waaw soo soo ko dee wér de ñi ngay mën a ja- jaxasol day mën a néew mën a néew la parce que ñi dëggu dañoo bëri ah bëriwuñ waaye loolu doy na war de si ah ah, dëgg ba bëri moom ah, dëgg néewut di xam Ah.
nga da- avant danay yow ma ma ma yenn fam saay di xëy na siit ko mais ne xool benn benn bis rek kon la xanaa muy ëllëg wala ba léegi da- da- dana am kaddu gu- gu jib ne tey jii nag ku doon dëggu tey dana la jëriñ
ku nekkoon ci safaan wi nag ah moo xam moo xam ah ah moo xam ah kooku moom léeg-léeg yëfu leer na fi tam
ay fam leer fi yëfu benn leer na ay dëggu aha ay suñ ne nekkoon naga noo yàlla wax ah bañ a dëggal ay wax ok waaw lu am solo nag benn noyal ah benn n- waaye ab ab euh, wootekat daa dem fekk benn buur benn prince ci jullit ñi mu mu koy waat di ko xas xas xas xas waaje tekk waaje ne ko "Ah, man de xam naa ne ku la gën yàlla yónni woon na ko ci kuma yées te ba mu demee dana ko woon waxal wax ju nooy Moussa la yónni woon ca Firawna
bu ne ko ku la gën wax yàlla yónni woon na ko ci ci kuma ma yées te dafa def ko wan wa- waxal wax ju nooy
kon noyal lay wax lu am solo la ah lay loolu lu am solo la nooy nooy wax waaye nag waaye nag wa maanaam léegi barab yëpp ba- dafa wuute waaw ci dafa am barab boo xam ne Waaw.
dëgëralul wax jala ndax Waaw.
ndax ci ndax bokk na ci jihaad dëgg Waaw.
yent bi bàyyi si sa tota wax wax na ko ci caydis mooy wax dëgg ci kanam buur bu jëng nga ne ko xis dëgg ga
loolu moom loolu moom amul amul amul ma def déedéet déedéet ah loolu la buur bu jàng buur bu jëng xis dëgg nga koy koy wax rek waaw ñëpp jàngee ji waaye nag waaye nag bàyyi xel ci la ñu waxoon keroog Hmm.
waaye ja nga xam ne dafa dafa gisoon ay biséeli ñollu yoo xamante ne mu laaj nekk ne kan moo ko moom ñu ne ko buur bee ko moom buur jullit bi mu mu jël ab euh, ci ci- ci- maanaam léegi euh, simiñ la la dawaleeg weñ di ko ci di ko ci ci dóor ba mu des benn bitéel mu mu mu mu mu bàyyi ko gars yee na na na jàpp ko ci cay di ko ci buur bi bu- buur bi ne ko yow lu tax ba yëpp tëj bitéel yi ba ba mu des benn ak càggal léeg-léeg woo ko mu ne ko mu ne ko ba bi ma koy toj yàlla la la laa doon gis ba mu ba mu des ba des benn ma gis ma gis sama bopp mu bàyyi mu bàyyi.
te xam ne jëf ji amatul njëriñ.
amul njëriñ ma kon amul nga xam ne nit ki war a amatul.
amul sa sécurité
waroo gis sa bopp ci lenn rek.
déedéet sécurité ci ba ba ma waxee buur ba buur ba ne ne bàyyi ko ndax buur ba day day gis yàlla ci directement.
yàlla tax moo tax kon maanaam barab barab barab yi bokkut
doon naa wax loo xam ne wax ji mën naa dëgër am na foo xam ne wax ji mën naa nooy. waaw parce que xaste ak yeddaate.
waaw dëggaat na bu bu bu mais bokkut kii bu fekkee ne bëgg nga ko defar. doo foo toll di ko wax ju dëgër ñu.
bokkut ci ndax ndax maa tey buur bi ne na ci digg mbooloom waaw.
tooñ Mhm.
ba bëgg a xotti wu- ci war a may ab sang waaw.
nga wax ko dëgg ci ni ko ko xës ah.
loola moo gën a fort ci moom dur ko dur ko loola la ci loola la kon moom lu lu ci mën di juddoo yow fayul nga kële fayal nga kële te jaadu na.
jàll na farata la.
ne kon si sëñ bi bi ne kon nooyal ay wax de jëm ci nit ñi Mm.
bokk na ci màndargam yow
bokk na ci maa nga nargam yeewu.
yow am xel mu def ah mu yeewu baax ak muus xam nga gars yi dañu koy jaawale yenn saa yi.
xam nga mu- mu- muus moom ni muus de mu muusi rek muus moom ni muusi rek waaw muus moom muusi rek nag yàlla noonu noonu noonu muusi daal moom seen dërëw rek ah waaw.
loolu la loolu la yow wala ñu wax moom yow
kon yeewoo gën muus.
moo gën ah moo ko ñu kay ah bon.
na ndax muus moom pexe rek la pexe te te te te pexe moom daanaka fa mu gën a jëm mooy interwaay interwaay ji.
ah loolu la loolu la sëñ bi daal di wax ne wax nañ ne ne kat xaajum xel am xel buñ ko xaajoon waaw.
benn xaaj ba mooy sopp sopp lu nit ñi
sëñ bi waaw mu ne xaajum xel.
nga sopp benn sopp lu nit xaaj ba mooy sopp soppul nit ñi.
waaye nag ñen nit la mu ne mu ne ñi nga xam ne ñoo nekk ca dëgg waaw te it sopp soppul gi yaa ngi koy jëme ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëgg. waaw loolooy dëgg.
doo fekk maanaam nankatub sàngara waaw.
nga di ko sopp soppalu waaye nag waaye nag do- doo ko do- doo ko tungu nag tungu koo xam ne maanaam léegi mën na koo tax a nuuru ca lam ne waaw war a maa du ci ay mbiram sax boo ci fekkee ne mënoo ci mënoo mënoo ci lu bëri.
seeb du seeb du jóg mii di di maane sëñ sëñ Saliou dama dama dama dama dégg bi bis muy waxtaan ci wax ne dafa am waayam joo xam ne dara jëfandikoo ya- ndox mi la wala ci wala pën nee na moom xam na ko waaye nee na ma ma lax ko ko lax ko ko ba- ba waa ji bis moo ñëw fi fi man génne da- da- dara jox ma daal daal dina ma man kat yow li- yow mos ne ni nga mel moos ba noppi mën a ànd na nag man te xam naa ne xel xam nga ne maa ngi def nangam ne ko tey waatal naa la tey jii Naa maanaam ko.
ci ci ci la koy mujj xoolal ni mu ko lijjantee rek.
di di di- di sax mu dem koo xam koo xam teg ci ne ko. mbaa xa mbaa xa ci xam nga ne soo ma ci jéemoon a génne ma gën cee nuur.
nga xam ne am na méthode boo xam ne sax mën ngaa fexe ba nit ñi nga jële ko ci li warul indi ko ci li war. te du am rigueur.
ngoog ndax ndax xam nga bakkan. seytaane da koy dimbale. soo ko ñu bëgg a génne ci force si si si seytaane da koy dimbale.
te te bu yàggee moom it mu daw la.
ah wér kay yow mën a mënoo ko di. moo ko jëndee ko moo ko ah moo koy lom si la kon. ko ci ci kon sëñ bi ne boo bokk na ci taxeeg as cam fu mu jëm xolob way jub ña duñ ko sànni fu la ko ku baax seen maanaam léegi bëgg laa jege loolu loolu loolu mooy taxe taxe dëgg ku ku ku baax ku la seen ci xàmmee la ne nekkee xam naa waaw ndax ndax am na mag ñi am na am na am na lu ñuy dimbalante am na am na lu ñuy mayee loo xam ne maanaam nekkul ci maanaam aw aw- ci ci xaalis bu bu bu leen di jox. sama mbo mbo ju jur ba nee na da- daa mas a ànd ak si si- dafa mas a dem ci ab rob ci armeel yu ci armeel yu yu yeesee. feeñ bu nag am ko kilifa gu ko fa yóbbu woon ngir nangamam bu ñu la woon. nee na nag timis la nee na bi ñu génn bi ñu génn bi ñu génn ci armée yi timis la sëñ ba moom ba ba- ba ko suñu sëñ bu jullee ba ñu taxaw ko ba noppi rek daal di dugg ci oto moom daal di wéy xam naa moom moom moom fàtte na ko xam sëñ bu booba ba di neexul naa naa ma mag gi nee na ma daal di ma daw ba tolloo moom da- daal di téye ci téye ci- ci loxo bi mu ne kooku kooku kooku ci kan la mu- mu- ci ma ne ko ci ma ne ko ma ne ko Mor Joor ba mu nee na ma téye ci loxo bi bañ génn da da daa koy dugal ci oto nangam nangam mu mu daal di dina ma tàllalal ma ma defal dara li nga wax ji tàllalal ma defal la dara xam nga loola mëne su ko am ci milliard déedéet déedéet
lu am solo la maanaam lu am solo la maanaam fexe ba ku la gis koo kee su la gisee ba noppi ñeme la ba nga ne ko moo joor mu ñeme la ci ci nga taxaw ko nag xam nga bul taxaw ci mu ñemel da dong ba mu la ñemee ubbil la ko léegi ci war nga ko ma liggéeyal buntu buntu buntu yàlla ngoog ok
war nga ko mën a liggéeyal liggéey lu am solo
doo mën a la sëñ bi bi nag na ci daal di ne kon na na ngeen siyaare sangi borom xam-xam yi boo xam-xam ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne dañoo xam ba noppi di ko jéem ma jëfee mu ne na nga leen di lël di jëfal ngir jëm yàlla ja ci waxtu wu ne soo ko mënee rek nga xamante ne tey misaal ku mel ne suñu rem suñu matakkee mu wax maanaam ko nit ku ne war nga ko mën a siyaare war war nga ko mën a jëfal ngir yàlla du du sax jëmmam ja waaye ngi ngir ngir yàlla ak kam doon liggéeyal kookee muy sëñ muy muy sëñ sëñ sañu ah ndax it kenn ku ne ci ci ci noonu war naa rusa maanaa léegi dongam sëñ Saliou bu ko jox ak dundam maanaa léegi di di wañsu du yoon di wañsu di di soxla kenn ah loolu moom loolu loolu moom maanaa jikkut moom jikko jikko de wala dëgg la ah jikko jikko de kon nag ko kon nag mu ne na na ngeen sàkku séerum ñaan gaa yi baax yooyee nga xam ne sëñ bëgg yi
kanti moom moom moom moom sëñ Saliou rek.
ah sëñ Modou Gueye wala.
déedéet moom moom sëñ Saliou rek ah sori waa ji rek.
kii nu mu tëjee kàllaat yi sëñ Moussa.
daanu na ndukat bi. sa sa sëñ daane moom mën na doy. ah la ilaha illallah. moom xam na ko.
sëñ bëggee xam naa ne.
xam na wala te xam na ko.
sëñ Abo.
sëñ Abo kii sëñ Abo sëñ Abo.
moo ngi kii waaw sëñ Abo. sëñ Abo bu baax bi rek.
ci xam nga.
sëñ Abo.
xam ndeysaan.
nga xam nga xam nga moom. yaakaar naa ku doon siyaare ji si si si si si Saliou ba ba gis ko.
ba ah war waaw koo war ko mën a mën a siyaare bu siyaare.
wér nag te muy dëgg loolu de moom loolu de waaw.
Ah.
waaw wallahi wallahi ah waaw ku doon siyaare ji sëñ Saliou ba dajeeg sëñ Abo.
Ah.
war nga ko mën a siyaare. dëgg gu wér peng la loolu.
yaakaar naa ko de.
waaw.
yaakaar naa ko de. ah nga nga xam ne kon kon siyaare kon gaa yooyu kon di leen liggéeyal. kéem tolluwaay kattan waxtu tu tu tu tu wane bul toqi. tey sakku seenu ñaan.
waaw.
sa mboo yu jur wa nag mas naa koy wax Baye Ibra Touré moom ku mel ne Baye Ibra Touré. bokkoon na ci ci mag ñi àndoon ak Cheikh Moustapha. te mu bokkoon ci ñi mu joxoon ñu koy tële woon sëñ Mbacke ci Madina raay ba bañ koy ba ñu def defar raay bi ju- jógee Njaaréem ji jëm si Touba. ña ci gënoon na- na jàmbaar la bokkoon. bis nag sa sa mbay rek dama leen daal waxal na ma ne ma ku mel ne Ibra Touré mii kat maanaa léegi dundal ko moo ma gënal de Makka. ma ne ko ah kon de xanaa kon de ba ko ko ko kii yoon sax day. tàllal ko loxo ne ko ñaanal ma mu ne mu ne mu ne ma ma ma ma dee mëtu ko. da ngay fa da ngay fas yéene ne ne ne ne dugal ca liggéeyam ba ba dara. na ci ndax dama regal. gars yi bu bu bu ñu waxee ne te nga sakku ci ci ci ñoom ak ñaan ñaata nag sakku ñaan gi mooy sakku ñaanal ma. déedéet da nga koy jëfal ba mu ñaanal la.
boo déggee rek ñaanal la.
du du du doxawum xam nga léegi maanaam léegi ci ci ci ci léegi rootal ci teen bi ku ne xam na ne faaw da nga am alan ak goj Dëgg la, ak baag Mhm.
goj ba goj ba nag ak ak baag ba loola mooy ji jëfal leen jë boo leen liggéeyalee rek.
daña ñaan loolu loolu gën a ndax ndax man dama xaar ne am ñaama ma Waaw.
mbaa du firi nag da- dama ko jënd loolu lay niru de ah la xaar de ñaanal loolu. bokkul nag ak xool ngay jëf jëf ju rafet.
Ah.
ba jëf ji sedd xol.
Ah.
ñaan nga jóge ci xol ba.
Ah.
lu jóge ci xol ci xol rek la ah jëm.
yaakaar naa ko de waaw mu ne kon mu mu ne ne ne kon na ngay na ngay barkeelu ci ñoom nga xamante ne ku ku ku ku demoon ci sëñ Abu Bogue yi maanaam barkeelu ci ci moom ngir gis nga ngay gis ci ci moom së- sëñ Saliou Dia Saalu jë.
nga nga barkeeloo loola te la sëñ Saliou nekkoon ca la nekk.
Wallahi.
jàngale wallahi ak yare.
wallahi Mhm.
maanaam nga ak wéetal yàlla. wéetal yu yonent bi wéetal sa sëñ Bamba ak dëggu bu wér dëggu ah wéetal nga moom.
wéetal kaa ko.
soo wéetalee yàlla. wéetal yonent bi. wéetal sëñ Bamba. da ngay dëggu da ngay dëggu.
si si si boo koy dëggu rek xam.
macha allah waaw. mu ne soo soo defee loolu. xam nga siyaare ku ñu mel noonu lu mu la jëriñ lu mu lay jëriñ.
mu ne da ngay dolli ko ak jub.
nga xam ne saa soo ci jógee rek ah man de war naa seetaan suma bopp bu baax a baax.
seeboo gi boo fa demee boo fa jógee. da ngay sax taq.
te muy dëgg.
tali bi gi rek sax. tali bi gi doomu sax. dana la koy duy.
dana koy duy.
waaw wóolu gi mu wóolu si maanaam si si maanaam maanaam si Saliou. ko wóolu. waaw wóolu ko lool. yàlla ko sama dimbali lool.
amiin.
mos ko ci am ndog ak ndam.
amiin.
waaw mu ci ci mu ne nag mu mu ne sëñ bi ne na nga xam ne. màggal aje xam. ju jëfe xam-xamam. xam nga lu mu toll la.
màggal aji xam.
ju ju ju ju ju jëfe xam ci ci xam-xamam.
nu mu toll.
mooy mooy màggal borom ci borom aras.
màggal aji xam. bu jëfee xam-xamam.
waaw
luñ koy méngale.
màggal borom aras yàlla rek.
kon nga xam ne saa boo màggalee aji xamum.
waaw juy jëfee xam-xamam rek.
waaw waaw.
màggal nga borom aras.
maanaam foofu sëñ bi lii yomb na de.
waaye fi ñu toll nag. bu dee noonu ci mën a géej noonu. noonu xamuñu lii. xam bu njëkkoon moom mu léegi moom lu ñu xam lu ñu xam.
mu di toog toog léegi.
lu ñu xam.
muy ci ci mooy borom yi mi mi mi dara borom yi muy passero donte ne xam nañ ne da koo jële ci maanaam ndax dorog donte ne xam nañ ko mu wér ci nga.
loolu kat moom mooy dox ci réew mi yëpp.
ah ah ah déedéet waaye.
ku amul nekkoon.
ah ah ah waaye nun murid yi ku amul nekkoon.
murid yi yi noonu suñu borom dañ cee dañ cee sippi woon noonu dindi woon nañu de.
ah murid yi kat ñu nga ca ba léegi.
dé dé dé mën ngaa woowee sa bopp.
dé dé dé maanaam ma murid yi léegi la wax. man man man bokkuma ci murid léegi. man man ku ci bokk na.
ah man bokkuma ci léegi man bokkuma ci man ngay wax ci murid yi man man kay kon de xaw ma xaw ma kuy nangu nga bàyyi ko ci.
ah ah oui man man kay ko bokkuma ci man de ko bokkuma ci man mais lu am solo la.
wallahi ndax ba tey.
wallahi nit ñi. dañoo war a weesu la seen bopp ci ne.
waaw balaa ngaa fonk nit ki.
waaw balaa nga koo warmaal.
waaw mu doon koo xam ne nii. da nga koy yaakaaree dara.
bismillah loolu musiba la.
musiba la.
parce que donte da ngay bokk ak ni sax même loolu day am ci sunu sunu sunu sunu famille.
Wallahi.
ki nga xam ne nii donte yaa fa mag.
wallahi te gën fa néewi koppar.
waaw lu ñuy def duñ la ko yëgal.
ah loo koy duñ la boole ci dara.
Dara, dara.
loolu rek la kon nag defe naa ne.
Te- lu am solo la di toppatoo ñi nga xam ne nii.
Wallahi.
dañuy jëfe seen seen seen xam-xam.
wallahi la wallahi Mhm.
maanaam seetlu woon naa si si Aliou Gajaga Mhm.
moom njëriñam mooy bàyyi si Xaadim Gajaga mii nekk ci maanaa fii ci fii ci soowu bi rek Mhm.
moo moo bàyyi moom moom moom si si Xaadim Gajaga comme solo la Mhm.
comme solo lool lool lool lool maanaa bàyyam nag dama ko daa man su ma ko séenee mu mu mu toog wéet mu ñëw toog fi moom boobu boobu bay di suñu borom borom xe- ci xelal na ma ma yee na ma ci ne bu ne bu toogee ak mag du wax doo ko laaj Mhm.
ma mag may toog ba- ba xool li li mu la war a wax mu wax la ko dooree da ngay muñ rek da nga naan roppit yar say cër doo ko ne jàkk.
nga nga- nga xamante ne ne ne yow li nga koy defal mooy witti li gi rek waaye ak am njëriñ toog ci wetam.
toog rek doo ne ko waaw doo ne waaye ko toog ak kilifa di wax rek.
déedéet rap rek waaye waaye waaye ci mbër la mbër la mbër la maanaam maanaam jotaay bi yëpp day day day am njëriñ day am njëriñ ak taalibe lu am solo wéetal yàlla Mm.
eh, lu am solo.
ah loolu ñu la fàttali mbokk yi yéen a ngi ànd ak rajo Dunia Serigne Moustapha Diop kooku ci seen émission pencum euh, Sénégal Euh, tey nag euh, ci Naxju xam nga euh, ni ñu ko waxee woon rek. euh, njëriñ yi nga xam ne nii Serigne Touba Cheikh Bamba Khadim Rasoul bàyyee nañu ko defe naa ne saa bu ñu koy fàttali rek. euh, kenn ku ci nekk nag mën ngaa natt sa borom.
waaw sa bopp ci sa bopp laa bëgg a wax sax ci li nga xam ne moom la sëñ Moussa di di tekki ak fa nga féetewoo ak fa nga toll defe naa ne kenn ku ci nekk mën na see gis sa bopp Wallaay.
waaw sëñ Moussa léegi kon ma bàyyi la nga wéyal Wallaay.
Mhm.
s- s- sëñ bi bi daal di la wax ne soo àndeek jëmm joo xam ne moo la mag bul dañ ci di ko wet fo- foofu Mm.
ak sew sew da da ci am ah bon
soo soo demee ci sëñ Saliou woo sang soosu Mhm.
ñi nga xam ne dañoo jege woon ak ñoom maanaam dañ ñuy mujj for def leen ay nit
waaw parce que yenn saa yi boo ko jegee ba mu ëpp voilà
ci na nga da da koy jàppee ni nga jàppee.
niti gi la. maanaam niti gi. ci xam nga la ci ci la ñu waxoon keroog maanaam maanaam Serigne Fall la ci la waxoon. sëriñ bi may wut sëriñ la boo xam ne su ma ko gisee maanaam ci yàlla woo gim lamboo damay làq nitam nga.
est-ce que yàlla woo gi mu.
gim lamboo damay làq nit nitam nitam nga. ndax nag feeg yow sëriñ bi. feeg nit nit a ga làquwul rek.
waaw doo mën a jëriñu doo mën a jëriñu ci moom.
na na ci na ci ci na man nit nit la. su ngeen bokkee lekk.
incha allah bokk naan waaw.
nit la.
waaw nit la bu yàggee rek.
ay nit da da da maanaam wo- wolof nee na soxmaat. jëm na ndox moom dëkkal. da da da da da gis ci géej gi ab jeelu ci xorom. te boo boo ñu tëbbee sotti ko ko ci ndoxam bitti mi rek. mu mu mu see lu ko waral. dëkk am dëkk kee tax dëkk am dëkk kee tax ci lu am solo.
lu am solo.
ma ko kon ñi nga xam ne dañoo dëkk.
sang si ah dañ def nànk nag.
te te rawatina sunu sang bii fi ne.
sëriñ si nii.
ñaari bay yàgg.
ñaari ñaari bay di jëmay ci wax ca moom naan naan nu nu ko waxati waaye m- mbërum saahir rek mbërum tasuuf niroowu ñu laf bu ñu songoo mbërum saahir ma mooy daanu ñaari suufu yu nag bu ñu songoo ko ëpp ngërëm mooy not ki mam ba bés ko muy jëm suuf fu koy daanu Sëriñ Cheikh akamata moytu lay bàkkee.
akamata moytu akamata moytu mbër la de Cheikh Mati ah macha allah yàlla na fi yàgg.
na- ndax mbër la ci mbër la ci bàyyi mbër la dëgg la ndey mbër la moom it moom moom moom it mbër la maama.
ah dégg nga moom maa ngi bokk ci maa ma ma ma otisé la or catégorie la bokk ci waaye ñaar ñi ko wër ndeysaan.
ñu ñëpp mbër macha allah wallaay.
nga nga xam ne nañ koy coormaale mooy mooy di ko sori ko lool waaw.
di sori ko sori ko.
mën na ko de loolu sax kay.
mën na ko lool waaw nga xam ne yi daal sirantal ko sirantal ko baax na may ci ko afiya.
waaw wallahi la xam ne ñi bu buñ toogee fii tam ñu ñu ñu koy magee ci ci génération bi nga xamante te ne ci ngelaw li di di di ma di dikk ci moom bu baax Wallaahi.
yu yu yu yu bëri daal ñi koy nuyu it fexe ba bay woyof Nuyoo fa loxo yi loxo moom sa sa loxo tàllal ko rek waaw.
mu cëraay ko ci ci loxo doy na tey it foo foo mën a nekk nekk ca la nga wa- war a nekk.
Mooy moom.
njëriñam dana la fa fekk moom. ndax xam naa ne fu mu nekk fu ne nekk lu fa boppam.
man sa ci ci man sëñ Saliou mujj waaw waaw.
ñoom ma ko saaree ah su su ma su ma su ma ñëwee ba bay ci xayam googee Xay gawaan da- ndeysaan.
damay koy ñaanal da da da daal di ñibba doy na sëkk ba.
daal di ñibbi doy na sëkk boo ko ñaanalee rek sa bopp.
ah loo loo rek di.
Doy na sëkk.
loolu rek la. waaw sëñ bi ne kon nag. bul dañ di ko wormaal. di ko wekk ci ab tukki la wala ci ci leen. ne it maanaam na nga koy na nga koy na nga koy gën a lële ci ab toogaay ak laltu guñu guñu lal ak lépp lu ne na nga ko na nga ko ca jox ab cër.
cër.
mu mu mu ne na ngay toog ci suuf te te bul toog ak moom ci kaw ab lal donte ne dara woo ci was sax ne la ma ma gàttu fii.
Toog suuf rek.
waaw. ci ndax ne nee naa ne mën naa am sax moom jëmmam ji dëgërut. man ngaa toog ak moom man na gaañ ko te te te mu mu si la la ko wax. moom aussi sa sëñ bi nag ne. xanaa day to to toog ak moom day xanaa mu xanaa muy lu lu lu lu mënta lu lu mënta te ñàkk rek. mu ne su dee misaal aw ñam dikk na. wala ak naan boo ko ca jiitu. ndax mag ña bu ñu masaa aw ñam dikkee madina gi rek bala ñoo masaa ñam dugub mo- nawet bi bala ñu cee ñam dara si mbakk madina la ñuy indil dugub ji Waaw.
indil ko gerte ga mu léemu ko ba nag ñu doog ko sañalaal.
bala ñu koo ji sëñ bi koy léemu ii bala ñu ngi kaa mos dara moo koy léemu moo tax yenn saa yi mu yoolu yanu boolu sëriñ bi dugal loxoom ci diggante kubéer gi ak bool gi.
ah man de loolu gis naa ca ku te ku te defoon mbir ku ca.
defoon mbir ah.
sëñ mbakk madina da- dañ koo tibbal ba noppi nabal teg ko na lee war koo yóbbu seen na soxna daal daal di maanaa léegi fexe ba dem ci du ubbi ci na ndab la tibb ci seex maanaa coroxaan maanaa léegi ji- kii ci xol coroxaan la ba ah.
maanaa léegi ay at saa suñu tiimee saa su tiimee ñam wi bu tibbee tibb coroxaan ba keroog ba- ba muy faatu coroxaan la la ku ku ku yóbbu ma doon sago ah.
waaw ay at yu bëri saa su saa su Ñaata tiim saa su tegee ñam wi bu tibbee ëpp tibb rek wala subi la coroxaan da- da- da- day coroxaan ba ba nga ngërëm ko wadd waddi kilifa kenn du ko jiitu ci ñoom.
waaw te te te amaan na na leen njëriñ la. mooy kilifa ga am na xam-xam bu muy xam boo xam ne su tiimee ñam wa ëf ko ca. ci ci ci lor ji ci ci nekkoon dem. ci ci xam nga ci ci ci hadis yooyu benn sa sa tu wasalaam. dañ ko joxee ndawal boo xam ne dañ ko toogee. kama àndaloon. kooka jëkk koo maa dugal loxoom. ñam ko kooka kooka kam moom da faru. bi ba ba tegee loxoom rek ñam ween ne ko man day naa dañ ma ma toogee. nga xam ne ki diggante du dugal loxoom moom noonu la noonu la dafa toog kon su kon su mu yoon rek waaw.
su ma yoon rek kon. waaw dara du ko ca fekk.
waaw moo tax kilifa moom soo soo. si si manaar. daana wax naan doomam yi ni leen kat suñu suñu suñu ma indilee am soow. wala ndox ci pénc mi su ma naanee bëri naan.
su ma naanee bu bu leen naan bëri naan. ah ndax moom la ko la ko la ko ci jig.
ah jiwu leen.
lu lu lu solo la. mu ne kon ci mu ne kon su bu ñam wax. la la ci gën. maanaam léegi nan ko ko bàyyeeg moom. ma mag ña nag. nañ daa def mooy. maanaam léegi kilifa gi. maanaam léegi gi ñam wi. ku mag ku nekk. day jox ndaw la la gën. ci ndab la maanaam nan naa léegi yow ku ndaw ki moom. maanaam moom léegi digg ndab li moom du ko laal.
du ko laal.
ki maanaam mag ñaay jox jël di ko jox.
waaw.
am solo.
lool lool lool.
parce que bu njëkk bu njëkk daan nañ ko respecté lool. nag lool lool.
xale loxoom du dem ci digg ndab.
kenn bi bàyyi salatu wasalaam moo ko waxoon. Abdullah ibn Abbas ñu ñu ñu ñu bokk mu ne ko kan mu ne bu ci mu ne ko ku yemal ci di tolloog sa kanam.
léegi nag xale yi dañuy déplacé bu bay dem ci kanamu jàpp.
bisimilah te te te dafay wax ne. naa koy wax ay gone yi fa fa fa yi ma ma ma ma na leen. booy lekk ba sa kanam jeex nag. da ngay jub ndax xam nga ay kanam rek la ndax lépp ay ay kanam la.
déet saala bu fekkee ne bool bi dafa féete parce que fii saa bu ñuy lekk moor la kanamam di njëkk a jeex te muy mujj a jóg loolu Matar kuy lekk ba sa kanam jeex règlement la ah da da
ginnaaw ay kanam la.
waaw ay ay ay kanam la moom ay ay kanam la sa kanam jeex na ñu nag
waaye nga sa kanam jeex nga attaqué kanamu Cé- Matar cee.
ah mais dañ lay puusal waay waay waay moo tax moo tax waaye nag kooku nag ci xale ya may leen di di kii may leen yéen kat ay sëriñ ngeen may leen ak sëriñ nag dama métti